centre médical li day care te mu nekk ci commune Ngogom ñu lëkkaloo ak doomi américain yi lee teg nañu xeer ba tam di fukki fan ak ñaar ci weeram novembre doomi américain yi jàppale waa Ngogom di wax li tax ñu dal di tàmbalee seen partenariat ci wër-gi-yaram bi lee Uh, for this specific project, uh, the pour faciliter euh, l'accès à la médecine, au euh, aux soins. ah dañu indi logistique euh, pour euh, transport foo munti nekk fii ci biir région ñu déplacé wu ñëw indi la pour faj la. to expand that to area uh, regions as well so that they can benefit from this medical uh, uh, center as well. maire bu Ngogom nag mu ngi ñuy xamale centre boobu nga xam ne bëri na loo xam ne dees na ko fa def. complexe lay doon. centre médical la pour ku feebar ñu ñëw faj la boo bëggee faju di nga faj parce que standard yi ñu fiy def standard international la équipement yi fiy def ay équipement au niveau international lay doon mais aussi day amaale système bi nga xam ne li ñuy wax euh, traitement à domicile cest à boo feebaree benn numéro vert nga xam ne doo fay dara ci ngay composé wala application nga bës euh, am ñu ñëw seet la sa biir kër xool la xool sa yaram su fekkee mën nañ la faj foofu ñu faj la fa su fekkee mun nañu la faj ñu jël la indi la si centre bi donc loolu moom benn benn euh, pàcc la si si projet bi mais beneen pàcc bi moom mooy li ñuy wax formation des jeunes tout ce qui est lu jëm lépp lu jëm si wàllu pàcc si wàllu euh, euh, wérgu yaram Euh, li ko dalee si infirmier yi wàcc ba si même accueil ki nga xam ne sax feebar bu ñëwee ku feebar bu ñëwee ni ñu lay accueillir sax dinañ la ko jàngal fii. centre boobu nag xayma ga ci wàllam koppar gi ñu ci def toll ci ak milliard liggéey bi war a def fukki weer ak juróom-ñett. Euh, dañoo lancé liggéey bi rek di ñaan euh, fii ak fukki weer ak juróom-ñett ñu dajawaat pour inaugurer projet bi parce que loolu mooy dure travaux yi nga xam ne ñu ngi ko xayma si benn milliard li ko dalee bâtiment bi. ba si équipement yi ak ambulance yi parce que ambulance yi day bëri ndax wax nañ ne boo wootee dañ la war a jël si donc war na am oto yu bëri yi nga xam ne disponible donc yooyu yëpp boo ko boolee moom mooy benn milliard yi nga xam moom lañ bëgg investir fii si eh, département de Bambey mais particulièrement dans la commune de Ngogom. ndaw Ngogom yi lee dees na leen jàppale ci wàllam tàggatoo. mën a amam xëy bu ñu sukkandikoo si seenam maire. yitte population yi mooy wér yaram ak liggéey. xam nañ ne liggéey dafa manqué si suñu département yi Bambey particulièrement xale yi boo demee Pàcc Lambey 80 pour cent yi fii lañ jóge département Bambey lañ jóge parce que ñu liggéey seen dëkk donc ñun dinañ permettre ñu am euh, qualification am dina leen permettre ñu mën a commencer wut liggéey te am na li nga xam ne mu ngi si biir projet bi ay buntu ñoom dinañ leen ko ubbil nga xam ne bu buñ la formé fii parce que li ñu lay formé fii formation boobu États-Unis lay nekk parce que c'est des Américains seen système lay ñëw formé la nga xam ne dina la permettre yow ñu ubbil la ay bunt nga mën a dem États-Unis wala Canada si hôpital yi foofu pour mën a liggéey am na ay convention yoo xam ne daycare da koy am ak yu mag yi nekk États-Unis nga xam ne bu ñu la formé fii ba pare dañ lay a yóbbu nga mën a dem continuer sa sa sa sa sa pratique. ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité yi ak waa dëkk ba yëpp daal di daje woon nag ngir teg xeer bu njëkko centre médical daycare bu Ngogom ci Silane Malick Gningue Bambey 24.